wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum taala wa barakaatu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal a cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba yi naal yépp ngir yéene koo liggéeyal a Cheikhul Xadim mu defe ko ni mu ko bëggee di siyaare njabootu sëriñ Massamba Kanni bu Bousso jaarale sunu nuyoo ci sëriñ Fallu di ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko ci kanam njaboot gi di nuyu sët yu baax yi nga xam ne it ñu ngi ci jataay bi nu di ko jaare ci Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne moom lañu doon jokkool mu jàllal leen suñuy nuyoo ci mbooleem kilifa yi kenn ku ci nekk la cay xàqam di sant yàlla bu baax ci jataay bu solo bi nga xam ne dañu ko fekke di ñaan yàlla kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ko woote suñu borom kàttan na leen nu yàgg ko woote mu mel ni li nu waxoon nu waxtaane ko lu mat di waxtaane la rawatina ci jamono bi nu toll te mooy diggante kiy toppee ak kii mi topp teggin yi dox ci seen diggante ak wan doxin moo ca war ci ak topp yan njàngale la ci Sëriñ Tuubaa indi ñu baax ñi ko toppoon nan lañ doon doxale loola dafay mel ni waxtu wi nu toll ak jamono bi nu tollu dafay yàlla ñu di nafar loolu di ko fàttalee di ko waxtaane ndax jiitu mënta ñàkk toppe it mënta ñàkk ba duna sosoo ba léegi day doxe ci noonu rawatina it nag bu dee ci sunu yoon wu sell wi nga xam ne yoonu toppante la te waxtu wu nekk bari yu cay tab bi yoo xam ne dañ ko ciy dugal te du ca bokk wala nu génne ca lu ca bokk day mel ni léegi-léegi ëppal am bañ dugal ci lu ci bokkul wala yéesal am ban génne ci lu ca bokk kon delluwaat ci sëriñ bi mi nga xam ne moo nuy nosal moo nuy tëralal ndax moom mi nga xam ne moo tëral yoon wi tëral it nees ci toppee jàngale ci it kiin war a topp ni muy mel te ñaari misaal yëpp feeñ na ci bu fekkee ne kuy jàng mbindam la ne ca àll ba di gëstu sëriñ bi di gëstu ñoñam bu agsee ci mbindum sëriñ bi te xamul kenn kum defar mbind ma dana dana tegtal kiy topp ci ne wala kiy gëstu mbindum sëriñ bi dana ko tegtal jàngal ko kiy toppee nan la war a mel ak kiñ war a topp ni war a mel lu dox ci seen diggante bu fekkee ne danga bokk ci yoon wi nag yow ñaar ñaar daf la ciy daal di fekk mooy benn dangay gis mbindum sëñ bi ba noppi gis ku sëñ ñu sëñ bi defar aw lay du am boo ne jànguma ñu ne la waaye xanaa xam nga sëñ diw nga ne waaw mu ne ñu ne doxiinu sëñ diw mooy mbindum sëñ bi rek ndax sëñ bi du bind ne nii laa bëgg ku ni jaar ba noppi defar ñam defar wuuteeg ñoom la muy bind mooy nekk la muy jëfe te la muy jëfe moom lay jàngal moom lay def ci ñi nga xam ne ñoo ko toppoon bu boobaa nag day mel ni aji ki niy topp mooy tudd ab sëriñ te sëñ bi melal na ci dara ci loo xam ne lu gàtt rek lay doon sëriñ Tuubaa dafay mel ni buñ ko doon laaj wala dañ dañ ko doon wax dëgg-dëgg ki ñuy topp nan lay mel ñaar yu gàtt rek la mu ne dëgg dëgg ki ñu war a topp daal mooy ki dul juuyoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne tànkam mi ngi ko teg ci fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon tànkam sëñ Tuubaa ne na kooku kat yell na ci aji kii toppee mu topp ko kii roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy indi mbooleem ndigal yi tey moytandiku mbooleem safaanub ay ndigal te moo di tere mu xamle it ne jëmmi kooku nuy topp moom de lu muy digle yàlla kese rekk lay doon lu muy tere it yàlla rek yàlla rek tax mu di ko tere ndax kiy digle ngir bakkanam wala muy tere ngir ngir bakkanam sëriñ bi nee na yemut ci moom doon ku réer waaye day réeralaate moo tax waxoon na ne képp ku nit ñi dëgmal nga won leen sa bopp baa nga won leen seen bopp lu dul nga won leen yàlla sëñ bi nee na yaag ñooñu ñëpp yàlla dana leen boole woo ma tabal sawara te day mel ni nag léegi ñi ñi ñiy wone seen bopp moo ëpp ñi bëgg ku leen won seen bopp it ëpp fi ne problème bu bari dafa xew mooy ni ni foo taali bi di amee la foo leneen di amee ndax fi ne am na kooku lu dul lu ko neex bëggu koo dégg saa yoo ko waxee lu ko neexul mu bala fi te sëñ bi nee na wa man tawajjahat annaasu ilayhi wa tawajjaha huwa ila nafsi aw ila anfusihim dafaahum rabbu naas ila naari lati waquduha naasu wal hijaara saa yu la nit ñi ne dan te joxoñoo leen yàlla lu may di leen won sa bopp wala ñoom nga won leen seen bopp sëñ bi nee na jëm mi ji def loolu day moom sawara rek mooy nekk wàccuwaayam te sëñ bi nag moom mooy mooy mooy mooy principal bi nga xam ne boo xasee décidé ci mel mbir amatul wante amatul moo ko gisee woon nii ndax moo tax yëf yi di leer loolu Serigne tubaa jàngale yi wax lu mel noonu moo jàngale woon melaw wi nga xam ne ki ni topp mel na ni ci bëgg yàlla gën a mën a góorgóorlu ñu koy wammat ndax moom mi doon woote moom Serigne Touba xoolal ñu ko toppoon ni meloon melawu rëy wi mu amoon loo mën a nettali nettali doo mën a doo mas a nettali mukk ne sama maam diw de moo dàqoon a julli sëñ Tuuba wala moo ko daqoon a woor wala moo ko dàq moo ko gënoon a farlu déedéet loo jàmbaare jàmbaare ci sa digganteeg yàlla boo ñëwee doo seen sëñ bi loolu moo tax mu mënoon a wommat sëñ ma Masamba Kanni mënoon a wommat sëñ Mbàkke Buso mënoon a wommat sëñ Daaru Sandaay ñu mel ni moom nga xam ne boo ñëwee fi moom li muy jëkk a xëntawoo mooy fexe ba defar sa xol ba mu jag defar sa jëmm ndax wóotewul ngir boppam moom yàllay kese la woote la sëñ Mansour ja waxoon ne daa ilallaahi jallafal mujibi lahu ridan wa naajin wa muhtadin ilallah lu adduna soppiku soppiku sëñ Tuubaa bi muy woote yàllay kese tax mu woote lu ca mën a tabbi rek ak ku ko ca mën a dugalit yàllay kese rek moom la woote woon waaye ki ko wuy si ca yàllay kese joojee moom la yàllay duyel yetti àndaar faw ngërëmul yàlla tabbi ci moom faw ak jub tabbi ci moom faw ak mucc tabbi ci moom ndax moom miy woote yàlla ji muy woote ñi muy wammat te yàlla joojee rek la leen jëme te Cheikh Darou Assane Ndiaye naa wax ne Serigne Touba day musum ba ma jébbuloo ca moom ba sama bisub tey musuma digal lenn lu njariñul boppam nekk walla adduna nekk ca lu mu ma digal rek njariñul alaxira la nga xam ne lu mu lay yoon wu mu lay teg ak melo wu mu lay jàngal mooy lu lay jëme ci borom bi subhanahu lu mel noonu nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom alerte woon na bu yàgg dafa waxoon ne jamono dana ñëw jëmmi lislaam ci boppam mbind mi rek a fi des jëmmi diine njàng jëmmi diine mbind mi alxuraan njàngum kese mi rek a fi nekk bu boobaa nag ca la nit ñi gën a mën a xëntawoo jëm ciy jàkka waaye keroog la jàkk yi gën a wéet tàbbi ci koñ fukki jàkk nekk foofu la juróom waaye bu ñu noddee kenn du fa ne loolu kii noddu ak ki koy jottali rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi teg ci ne jamono boobu bu ñëwee nag góor góorlu ba téye sa diine ak sàmm ko nëpp xalu sawaraa koy gën a yomb ndax ya ya koy yàq ak ya nuru na muy mel ak nam cay doxe loola taxoon bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee loolu it bi sëñ Tuubaa ñëwee moom wuutewul ak yonent bi alayhi salaam ci aw aw yariin ak jëfiin ñoom ñi ko doon topp li Cheikh Ibrahima Diop al yi wax ne genn buum la sañ Tuubaa amoon di ca lugat ñëpp mooy buumu ko ragal yàlla waaye fan la leen di jëmee ci yàlla suñu borom kon benn dëkk lay yóbboo mooy yàlla genn buum lay wammate muy buum ko ragal yàlla kum wammat rek ci ragal yàlla la wammat kum yóbbit ci yàlla la la jëmee amul kenn ku mu wammat jëmale ci boppam wala mu wammat la jëmale ci lenn wammate googu mu doon wammate it di jëme ci yàlla taxoon na ba diggante moom mi nekk sëriñ bii defare di yare ak ñi muy yar di leen defar sëñ tubaay fekk ku fees dell ci digganteem ak boroomam di nafila téeméeri rakka di saxoo koor du noppi ci jàng alxuraanul karim te bu nuyoo sëñ bi sëñ bi jàjj ko lu yàgg-yàgg bul jóg ci ragal yàlla bul jóg ci jub lum la gërëm gërëm boo dellusee ci moom na nga sax ci dëggal na nga tax ci sellal melaw yi muy jàngale nit mooy doo mën a naagu mukk doo mën a naagu mukk te moom mi lay jàngal loolu moom Serigne Touba waxtu wu ne yaa koy séen ci kanam nga xam ne la sëñ Moulay Bousso radiyallahu taala an waxoon ne mboolem jaami yàlla yi buñ fexee wuti seen borom sëñ Touba nga ci seen kanam istabaqa al ubaadu kaana amaamahum wa fi mati xayril xalq qaydul awaabidi laqad faaqa kullan fi salaati ala nabi wa fiha bada taqdimuhu bil mashaahidi àndaar joo natt ci tagg yonent bi sëñ Tuubaa jiitu ca loo natt ci julli ci moom mu jiitu loo natt ci mu jëm ci jaamu yàlla suñu borom sëñ Tuubaa jiitu nga xam ne dafa set huwa salimu min al afati jumlatiha wa ma nifaqan bi ma imanihi mazaja salim min al afat amul benn gàkk boo man ne dogon ko nag bu loolu nangam mag sëñ bi baax na waaye mën taam ci sëñ Tuubaa salim min al afati jumlatiha nga xam ne amul benn gàkk amul lu des loo naan lii des na ci moom wala melow wi la war a doxe wala jëf ji la war a wala war a ñëwee moo tax bi mu ñëwee moom moomu di jàngale melo woowu te mel nii mu mel ci set nga xam ne amul benn sikk bu nekk ci Seyxul Xadiim bu wootee woote jëme ci yàlla ñi koy wuy si wuy si ko ci yàlla moom mi wammate melaw wu nekk lay doxee ci jëfin woowa moo tax sëriñ bu Buso nee na sëriñ Tuubaa daf noo yar defar sunu xol yi ba mu jag sell waaye yëmul ci defar sunuy xol mu defar sunuy jëmm taggat nu ba nu am cawarte topp yàlla am cellu mën a nungul yàlla waaye lu jëmm ji mel ci tàggatu ci sawar leeru xol gee ko gën a raw wal huwa alqawsu wal miqyaas rabba xulubanaa waa jisaamanaa fal kullu saafin wa naayib kon ndake kii defaree moom day mën a boole defar xol defar jëmm nga xam ne sëriñ bi yéegal nit ki di ko defar ñett dana daje ci moom ba ca jëkk mooy saa yu ko sa bët nee xot nga yëg yàlla ki bëgg a jëm ci yàlla ki muy gis di yëg yàlla looloo koy ñoddi saa yoo déggee kàddoom fu sa pas-pas tolloon ci ak néew kàddu ga dana ko renforcer ba nga gën a dolliku loo gën a jaxasoog moom leer yàlla di la gën a suub waaye bu fekkee ne koo xam ne boo ko gisee dara du ne ci yow lu may adduna kese boo leen toogee waxtaan yow la nga doon nëbbu sax moo la koy far wax la nga xam ne ngi mi ko booy ñëw fay nga sab téléphone ngi woo dara feeñ télé bi sax bu la nuyoo nga fay ko ngir bañ image bi ci génn nekk moom moo lay laajal boppam bu dee mbër moo lay laaj koo faral bu dee football moo lay laaj ban équipe ngay ngay kan koy supporter léegi nag nga nga ubbi koo ci yow boo jógee la ngay jëkk wax mooy ah bay sëñ bi daal nandate la ginnaaw sama sëñ bi daal nandate la loolu amul problème bu garaawoon sëñ bañ kon ñett tax di dolliku nga xam ne bu ko sa bët ne jàkk rek yàlla ngay yëg doo am benn benn benn loo yëg ab sëriñ moom foo nee ko jàkk sa xel warta tukki jëm fenn fu dul ci yàlla te loo gën a jaxasoo moom gën a yëg yàlla saa yoo déggee kàddoom sa pas-pas gën a dolli ko noonu la sëriñ Tuubaa meloon wala si dëbbu ikraamu man nazaloo ku ma sa ñëw fi moom benn melo la mooy wàccal la teral la waaye nag amul ñaari melo de wala si kulli waxtin fi ibadati man xabaahu jahran bi fatxin kulla man tadaja waxtoom wu nekk mooy wéetal yàlla ak jëm ci yàlla ak dox di wommat nit ñi suñu borom wommate googu mu doon wommate nag moo tax bi mu ñëwee ngir nu xam kii toppee ñun de bu dee ci nun kii toppee murit lay tudd ka ca ka ka muy topp dana tudd murit waaye ab sëriñ lay tudd léegi-léegi mu tudd ab seex léegi-léegi mu tudd nangam waaye jëmmi sëñ bi moom dañoo teel a leeral ne yow mi bëgg a toppee bala ngaa jóg di toppee na nga xam ne yett day dajee fi yow ma door laa nungul acceptation day lu am solo ku nekkul mu'min nekkul muslim nekkul muhsin maanaam yoonu murid du géew boo xam ne rek foo ay jóge bëgg lu yombul ñëw tabbi comme ni mu ubbi ko nii léegi nga xam ne <laughs> léegi bo loo am am pas-pas loo jàmbaare jàmbaare te amoo dara doo bokk loo wax kenn du ko gëm kenn du la considéré noo mën a mel ci weneen melo te yor dara loo wax ñu ne waaw kenn du la weddi weddee moom amul ci yor dara ku yor dara du yaradiku du dof du kaccoore boo dofee te yor dara ñu ne lim yanoo diis boo yara ñu ne mënta ñàkk mel nii boo xamul dara ñu ne da koy làqatoo rek day saa day nëb boo kàccoore da naan da koy da koy làqatoo parce que bu difut nii lee mu jóge fi gone la mais lim seere dafa bari faaw mu boole ci yi ñoom ñoo lay layal bu boobaa nag day daal di indi ñaari mbir ci diggante sëriñ ba ba ñuy topp ak taalib bi koy topp sëriñ Tuubaa moom waxoon ne yéen nag maa ngi leen di digal yéen ñiy toppee lu jamono soppiku soppiku lu mu yàgg yàgg lu mu metti metti bu leen fekk ab dof ngeen di ànd ak moom ab dof sëñ Tuubaa moom ki mu ko jàppee sëñ bi nee na sa fi xaman yatlubu jannaati bi laa ibadatin fa innahu lan yaqbala ki gis yàlla digle mu lànk ba ko fi ba noppi ne àjjana ji kenn mënuma ceetee dugg sëñ Tuubaa ne kooku moo di dof nee maa ngi leen di digal lu yàgg-yàgg na ngeen moytu sa fiix tey ànd ak Rachid lu tax mooy Rachid moom sëñ Tuubaa ne na lu yàgg-yàgg ci juróom la lay génne di la tàbbal ci juróom kon ki ngay àndal faaw man laa génne ci lan mu ne bi ci jëkk da lay génne ci ngistal looy jëf yàllaay tax ngistal lu jafee xam te sëñ Tuubaa nee na képp kuy jëf ngir nit ñi perte nga fa man kaana yasaa lil baraya fa xaaibun li anna al wara lam yamliku nafan aw dura sëñ bi ne nit ñi moom loo góor góor góor lu góor lu amulu njariñ mënuñu laa lor te kenn ku ne nit ñi nii lañuy ànd yow ak loo réy daraja loo bari le bari la nii la am ñu topp la ku ñàkk bala ku wopp nu daw la ku deenu fàtte la kun mere jéemal la bu mënul ci yow dara yàq sa der noo mën a mel nii mooy seen programme kon nag Sëñ Tuubaa nee na wa man sarrahu naylul nii bi jannatin fala yaltafit fi sa'yihi li nasi turra ku bëgg sa àjjana leer daal booy jëf bu ca gestu ñu ñuy jëfal ngir yàlla jëf kon kilay lay wamma da lay génn ci ngisal looy jëf yàlla tax waaye da lay génn ci ak rëy bu la génne ci attakabur dalay yóbbu ci atawaadox wala tasabur yi da lay yóbbu ci nga nekk nit koo xam ne dangay ngay toroxlu wayef atawaadox ñàkk fayda nag ak toroxlu dañoo dend te bokkuñ waaye iñaan ak rëyit dañoo jege jege nañ ñoom ñaar jëmmi toroxlu woyefal sa bopp te jëmmi yàlla rekk tax nam mu caa màggal la ngay màggal ak wormaal ka ngay wormaal waaye da di génne ci sikki sàkk muy deng-deng bu leen ci génnee li mu leen di yóbbu mooy da leen di yóbbu ci yaqiin ki ngay àndal da lay génne ci sikki sàkk maanaam doo tatone doo doo doo am benn lu lay gaar da ngay jàpp ne li nga jàpp mooy dëgg lu wér la amul lu la cay détourné ba ca topp da lay génne ci ak noonoo da lay génne ci ak noonoo bokku na ci ki ngay àndal lim lay jariñ mooy mu génne la ci ak noonoo te bari na ñoo xam ne loo gën a jaxasoo ñoom léegi-léegi ma wax ko ne am na grand place yoo xam ne saa yoo fa toogee mu neex la ak mu naqaree faaw nga bañ nit ndax danañ wax ci moom dara sikkal ko wax ci moom lu ñaaw nga daan xool ci moom image bu rafet ñu tegal la ci image boo xam ne dara rafetu ci te sëñ bi moom day bëgg ki ngay àndal waxtu wu nekk daf lay génne ci ak noonoo di la génne ci yóbbu la ci biir laay biire ak yéene ñëpp jàmm mu ne ba ca des yi da génn ci lu amul njariñ nit booy ànd ak moom dalay lay génn ci lépp lu amul njariñ di la yóbbu ci lu am njariñ kon juróom yum la yum la tere xañ la ko juróom yay njariñ la lay remplacer ci yow teg la ko mën laa jariñ jariñ googu mu lay jariñ it doxin ma ngi cay am sa digganteeg sëriñ bi mooy sëñ Tuubaa dafa wax ne ab taalibe am na nu muy mel la ca jëkk mooy faaw mu nekk mu'min muslim muhsin du am génn bëgg lu dul ngërëmul yàlla ci ay yëngoom ak dalam waaye it am na ñeent yu ñuy boole yoo xam ne aji kii toppe faw mu daje ci moom ginnaaw bu gisee kami topp tam matale la muy nekk du ma ca bëgg xóot ca bee damay damay féetewoo bii ndax ci bii la bokk poul bee moom poul A la poul bee bi ci la bokk poul A mooy sëriñ si poul bee ci la nekk moom lay sañ gën a kii bu baax a baax bu nu wéetee nag ne fa nun dongoy nen bu booba ñëw ci poul A bàyyi poul bee ndax bëgg nag léegi bëgg nga xam ne léegi bëgg sëñ Tuubaak sopp sëñ Tuubaak jeex ci sëñ Tuubaak maanaam baat bu ne da koo dégg nu ne moo bu ne jëfandikoo nañ waaye daal xusnul ixtifaa li athaaril xadiimi dara la in kunna la saa yu ne diw ndax bëgg gi sëñ Tuubaa wér nañu ne li koy wéral daal mooy topp jeexintali sëñ bi rek fu sëñ bi teg bu teggee nga teg mooy dëggalu bëgg sëñ bi waaye ajuwul ci rek nii laa ko bëggee wala nii laa ko bëggee lu tax moom sëñ bi nii la nekkoon yurdi l-ilaah wa maa jaa ar-rasuulu bihi mafruudan wa masnuunan fal nufnihaa nahlu fii maa kaana raadiyahu li neex yàlla ak yonent bi rek ca la nekkoon kon ki ki kii toppee it kam doon topp lam doon nekk ca loola rek lay nekk muy la la gërëmloo yàlla waaye du topp la nga xam day gërëmloo bakkanam